yéen mbokk jullit yi yéen mbokk taalibe yéen ñi topp seen télévision Al Mouridiyyah ñu ngi nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp ci bisu bëccëgu koor gi ñu nekk muy juróom-ñaari fan di sub talaata juróom-ñaari fan ci weeru Ramadan mu dëppoo kon ñaar fukki fan 20 avril 2021 ñi ngi fii ci saal bi ngeen xam ne eh, ñi nga xam ne ñoo ñuy topp bés bu ne baaxoon nañ ko miin muy barab bi nga xam ne mu ngi ci biir kër Sëñ Touba gi féete ci soowu jumaa ju mag ji ci tubaa li fi xew tam umpalewu leen ko mooy njàngum xasida moo xam ne ci ndigalal Cheikh Mamadou Mountakha lañ koy defee muy liggéey boo xam ne daf ko féetale waa bu Tarqiyyah ñoom itam ñu tànn juróom-benn kuréel yoo xam ne ñoo koy ay ay loo ba keroog ñuy àgg ci bis bu mujj ci koor bi tey nag ñi aye njàng bi mooy kuréel dë bu bu Tarqiyyah bu Touba kuréel 2 bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba kon am na kuréel bu ko jiitu mooy kuréel jaaroon nañ fi kon kuréel d ñoom ñoo ay njàng mi tey ñi nga xam ne ñoo war a gàttandu sëriñ bi bu ñëwee ba dugg ci saal bi ñu gungewaat ko bu njàngee ma àggee mooy kuréel 2 bu Thiès kon du ma def lu dul jox kàddu gi sëñ Xaadim Seck Cheikhouna Seck sëñ Cheikhouna Seck mu jox ñu programme bi nga xam ne moom lañ kuréel 2 andil. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu ñu ci ñu si ñu si di nuyu ñu fi ziar ak si moom yàlla ka fi lool ginnaaw loolu programme bi nga xam ne moom la war a jàng tey mu jëm ci. yaaxare day bi suñu saa si suñ paree dañ ciy teg mawaaxe bu naafi bu salaal naa suñ siise teg ci mawaaxe bu naafi Serigne Mahib Gueye suñu paree teg ci yaa kitaabal karim yi Daaru Moxti daa koy tëjee yow Serigne Lil Ajra Serigne Mahamad Lamine Gueye xanaa loolu moo nekkoon programme bi waroon jàng suñ paree xam ne ñu jox mooy jàng njàng mi tamit sëñ Fallou ñu fàttali ne njàng mi 17h30 ba 18h30 waxtu lay doon kon ni nga xam noonu la baax a def jërëjëf sëñ Cheikh naa ñu ngi lay sant bu baax mën ngaa dellu ci njàng mi ndax euh, kuréel gaa ngi lay xaar te liggéey bi dafa war a tàmbali kon lii ni ngeen ko déggee ci làmmiñu sëñ Cheikh naa Seck muy kenn koo xam ni dafa bokk ci kuréel bi war a jàng tey muy kuréel 2 bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba jottal na leen programme bi nga xam ne diiru waxtu lay doon kon ñu ko gisee sëriñ baa ngi waaj a yegg si ñu def ab tënk rek fidèle téléspectateur Al Mouridiyyah euh, les images parlent d'elles-mêmes le khalife est en train de s'acheminer dans la salle Nous voyons le responsable moral de Isbutarkeo, c'est Youssou Diop, qui fait partie également de l'entourage qui va accompagner le Khalif jusqu'à l'entrée dans la salle. Une salle qui est en train de refuser du monde et ce n'est pas un euphémisme puisque véritablement il a fallu serrer pour que l'on puisse en tout cas avoir une salle hein, qui contient le nombre que vous avez sous les yeux. Mais évidemment la demande est très forte, chaque jour elle augmente, Et pour ceux qui nous prennent de court, qu'ils sachent que c'est le même décor qui est là. Nous sommes dans la résidence Cheikh Khadim, nous sommes dans une salle dédiée exclusivement à la psalmodie des Khassaïd. Et le terme Khassaïd, nous l'avons dit, va s'inviter dans nos propos. Ce sont simplement les écrits faits par Cheikh Ahmoud Bamba, destinés à prier sur le prophète, destinés à faire l'éloge du prophète. Lui qui, dans euh, une belle unanimité, avait fait de sa vie euh, à Salat Sitta il avait pris le parti de consacrer les six mois de sa vie à prier sur le prophète et les autres mois à chanter les louanges du vénéré prophète Mohammed, paix et sur lui. Et c'est à cela qu'il s'est consacré à demeure. Et au final, cela a donné, n'est-ce pas, un nombre incommensurable d'écrits qui sont dédiés évidemment à ce prophète vénéré, à louer Allah le Très-Haut, à dire les bienfaits du prophète, de ses compagnons, et à faire revivre, n'est-ce pas, tout ce qui est un legs donné à, euh, que l'islam a laissé à la postérité. Voilà donc un peu pour parler de ce programme qui est là sous nos yeux, qui s'égrène chaque jour. Nous sommes aujourd'hui le 7e du mois de Ramadan. Demain, nous serons le 8e, Inch'Allah. Et le programme sera le même. Et la, la, la, le protocole sera le même. là pour suivre, n'est-ce pas, vers par vers, lettre par lettre, écrit par écrit, n'est-ce pas, jusqu'à ce que tout le programme qui a été prévu puisse se terminer. Voilà donc il est entré dans la salle. Sans plus tarder, nous allons suspendre puisque son entrée dans la salle signifie le démarrage de la prestation et nous lui prions, nous prions Allah de longue vie. Wassalamu alaikum wa